halaan bi kum waa Pastef ya farandooru Ousmane Sonko ya fa ñoo yàq fa ñoo saboote nganu njiiti réew mi Macky Sall ba muy amal ca Amérique allah wal fajiri yéen a kaay ñu ko xamal yoor yoor yéne a kaay na ko faalay xamal nan la ñu def ba sabote nganu njiiti réew makki Sall ca New York ñoom waa Pastef ya yaw seetal xaay ñaxtu yu métti moom lañ fay xamal sonkorisation bi nga xam ne fa lëmbee réew mi mooy Sonko ndamm naa la ji fi mu toll nii fa fees dell ca mbeddi New ya rawatina buntu hôtel ya wax la njiitëram Macky Sall fa lay dal fa ñoo taxaw rek di xaar ñoom patriote fu gis njiitëram Macky Sall ngir yooxoo ko ñaawlu doxalinam ak li yore réew mi l'évidence yéene kaay feelu leen ne ndaje mbootaay xeet yooyu kay diaspora ba fa ñoo jéebaane njiitëram Macky Sall mook délégation ba mu àndal fañ leen di yooxoo ñaawlu seen doxalin bés bi yéene kaay ne diirante Sonko ci ay manifeste ak a yuuxoo ña ànd ak njiitëram Macky Sall ñoom i tamit fa ñuy tàcc njiit réew mi rafetlu taxawaayam keneen ku rafetlu taxawaay njiit réew sàll mooy Antonio Guterres ba tax fa nara dalal njiit réew mi ñu toog waxtaan laa si yéene kaay ñu ko xamal nee na njiit réew Macky Sall kay fañ koy dalal ca Maison Blanche muy palais njiit réew bu Amérique Le Soleil yéene kaay ne njiit réew Macky Sall kay gàcce ngaalaama New York gam nekk fi mu toll ni ma ngi koy ndax programme ak agenda yoo xam ne fa bëri <laughs> leer lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne Aly Ngouille Ndiaye tànkam bi mu def ci ci gouvernement bi njiitëram Macky fa bañ nangoogut ko ba léegi source ay yéen kaay fa ñoo xamal ne ba léegi Aly Ngouille Ndiaye mooy ministre bi ñu dénk wàllu mbay mi dëgg la nag demut ca ministère ba ngir toog liggéey waaye ma ngay liggéey këram di jokkoo ak directeur de cabinet ba sëñ saw yéen bi ne njiitëram Macky Sall nag fi mu jaar ak Abdoulaye Daouda Diallo fa la bëgg a jaar ak Aly Ngouille Ndiaye wañ loxam bi ba mu dikk jàppale Amadou Ba léegi fay sotti wala du sotti li ci kanam rawul ay gët li rawul enquête kaay ba mu xëy di ko laajte mooy tekk tekkaaral gu métti gi nga xam ne ci la bun Abdallah Jonn nekk moom boobu ba léegi waxut fay nekk candidat wala jàppale Amadou Ba bi rek ki noppiwut ndax fa wax ca témoin yéen kaay du kenn ku may Aminata Touré Mimi bi nga xam ne candidat la ngir jiite réew mi 2024 yaaw seetal soxna Mimi Touré fa wax ne yéen sénégalais laay wax képp koo xam ne fa ngaa woteel Amadou Ba mooy ne yow fa ngaa d'accord ci ñetteelu mandat bu njiitëram Macky Sall ndax Amadou Ba moom mooy Macky Sall rek le quotidien yéen a kaay mel ni ku naan ko Amadou Ba sax gagné élection yi est-ce que dana yomb ci moom yow fa ngay xool waa APR yi fi mu toll ni fa ñuy xeex Amadou Ba parti allié yi bokk benn bokk yaakaar yaakaar ñoom ñëpp ñu ngi ci gannaaw Amadou Ba waaye Amadou Ba problème ak ña koy xeex ca biir partem ba fa la bàyyee ko muy waa APR ya Sud Quotidien dëggal xibaar bi na APR kay fi mu nii ñoom ñooy xeex APR maanaam ñoom yi neen ñooy xeexante seen biir te loolu nag narta baax ci seen candidat bu muy Amadou Ba bu dakkoot fa ñu ñàkk élection yi de info yéene kaay na leen waaye yéen tamit faa bëgg ngeen bàyyi xel leen na Amadou Ba dëgg la naam am nañu koy ngi ci loxom moyens yi xaalis ak matériel ak loo xam ne fa koy soxla pour campagne dana ko xam ak machine électorale bu benn bokk at ak ñaar moom mi ngi biir bennoo nekk ci nguurug Sénégal loolu kay ay avantage la lu baax ci Amadou Ba la li baaxut nag te politiciens yi ñaareel fañ koy def l'observateur moo xëy amal ci ab jàngat ah, yaw seetal fa ngay gis ab politicien boo xam ne fay nekk ci ak nguur dem ba nguur gay waaj a jeex mu xëy rek génn di xalab nguur ga di wax loo xam ne fay wuute ak wax jom doon wax démb di taggal njiit réew Macky Sall ak di leen xalamal coppeeku gu gaaw googu ak wax lu du dëgg ak nga foog ne loolu moom askan wi danañ ko dugal seen bopp yi askan wi fi mu toll nii fa ñoo xeewu leen nax ñaa a nag boo moytuwut mooy militan yu PDS yi a yaaw fa ngay xool ñoom seen candidat bi Karim Wade ba léegi ñëwagut gisaguñ ko Ablaye Wade di bàyyi ja fa noppi ba léegi kenn déggut ko mu wax ci candidature doom jeeg wala bu fekkee Karim du bokk kan moo koy remplacer ak réew mi yéen a kaay ne fi mu toll ni PDS fa ñoo tànc coincé ba moo tuut fa ñuy fori new de ñi bañ fori new nag mooy Khalifa Sall ak i farandoora waa taxaw yi sur ay yéen kaay fa ñoo xamal ne dogal bi ñu jël ñoom waa taxaw mooy fa ñuy uti parrainage ci askan wi te pourtant bu leen am nañ fukki député ak ñu dem foofu ñu parrainel leen waaye déedéet wax ne dañuy ut parrainage askan wi comité buy saytu wàllu élection yeeg na muy doxe léegi tey ñu taxawal ko seen biir leer la neen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy ne sûreté urbaine section de recherche dik ñetti bànqaas yoo xam ne fa ñuy lukkat Pastef bés bi yéen a kaay ñun ci histoire cocktail molotov yaag force occulte yaag commando Pastef yaag bis ba ay terroriste kalaate woon ca yaraax ak ak yeneen jëf yi ni mel vox populi na ko voilà gis nga Ousmane Sonko moom ngay wax ay avocat am fa ñoo déposé ñetti requête ba gën a kawe ci mbootaay réew Afrique yi CEDEAO ak ak yelleef Ousmane Sonko yi tax mu mën a bokk ci wote yi ñu sàmm ko te fa ñoo bëgg nag seen requête yi ñu àtte ko balaa waxtu déposé candidature yi jot Serigne Assane Mbacke kenn ci farandoor Ousmane sonk yi ba tey ci Vox Populi moom fa wax na fay porter plainte état bu Sénégal ndax fañ koo teg loxo ci anam goo xam ne jaarul yoon fale na yàkk kàddu yoo xam ne weñ wu ci dal dee ña ñu bañ ñu dee nag ba tax ñu teg leen loxo mooy ñaar téeméer ak fukk ak ci ay fa ñoo waajoon ngir dugg ci gaal yi barsa mba barsàq takktaree jàpp leen indépendant yéen a kaay ñu ko xamal Vox Populi ne man faa xamut lan moo tax ay capitaine nappkat yu mag di dugg ci gaal yi Marsamba ma Makumba Jéey jiite nappkatu Sénégal yi na ko faa lay tontu ñun ay nappkat leen suñ géej gi xamatul jën tubaab yi fa ñu ñëw di wànq léegi boo xamatul liggéey doo dem bitim réew lii mooy problème bi nguur gi moo war a xoolaat bato tubaab yi mu jox sañ-sañ ñu ñëw di xuuf paa suñ géej gi fa ñu yóbbu jën yëpp turbine yéen fa xëy moom di ñu fàttali xaalisu corona bi junnee milliards yi nga xamante ne ay kilifa ci réew mi fañ koo sàcc na ko tërix lekk ko sénégalais duñ ko gaaw fàtte li ni mel moo nar a nekk coow ci biir campagne wote yi di ñëw tàggat yaram ligue des champions phase de poule tey lay tàmbali waaye jongante bi ci gën a fës mooy Paris ak Dortmund champion bi tamit Man City moom it tey lay bal ak étoile rouge stade yéen a ñu ko xamal record yéen a kaay feelu ko te mooy yéen a kaay moom fa ñoo xamal mbir mu métti te doy waar ah, yaaw seetal fa xam benn butéelu gaz boo xam ne fa kalaate rey ñaari nit juróom-ñeenti doomu aadama xam ca ay gaañu-gaañu yu métti yëf yaa nga amee ca derkele hmm, waa ma ne dee leen bàyyi xel gaz yi beg buy peer ci suuf wekkil di baneen te beg ba nag fa nga bu baax ba dëgër mooy tuddi ubb ba muy fërërëri